cant ak ñeen na leen yéen ñiy seetaan nag seen plateforme bi syndicalisme TV nes gis ñu dikk ak yéen ci xibaar yi li ci gën a fës bokk na ci convocation Cheikh Oumar Diagne à la DIC nag maître nekk nag ko waral gannaaw bi nga xamante ni na ci ab convocation am ni ki àllarba ji nag direction xam ne nag suite bi plainte bi nga xamante ni maître Djibril daal dina koy déposé xam ne nag plainte boobee nag la jox moo mu indi rek ay preuve ci na ko wax ci PGA ak rek ñu déglu ko ci lépp li nga xamante ni dal na koy addu wax na nekk pare na ngir rek a fexe ba jàmmaarlu ak bépp force boo xamante ni ay lobby la wala forme de mafia jëm ci seen pourul sentinelle boobee Cheikh Oumar naka di infirmer rek ne amul lenn loo xamante ni ragal na ko ci wala lenn ab faiblesse am na ci ndax jàpp na ne ab gëm ku gëm yàlla la waaye itam incapable d'éprouver li nga xamante ni moo di peur maanaam ragalu dara ci li nga xamante ni si moo toll ni tarfatal ay nii Cheikh Oumar Diagne nag dina delluwaat foofee nag ci ab audition ci ay bés bi ñu jëm dem ba ca foofee ca jam ñaaju nag gannaaw bi nga xamante si ay jàngalekat ñoo ngi fa doon amal ab point de presse nag fa la police daal dee ñëw rek tasaare leen loolee nag dem sax bu am ñu bëri ñoo xamante ni doot nañ leen suba nag la daal dee am enseignant professionnel dirigé nag par ki nga xamante ni de presse lañ doon leen ak gaz lacrymogène ci jamono jooju nag ay enseignants yu bëri nag si jamono ji teg nañ leen loxo ka jiite di Omar Kane bi booba ak léegi ñaari camp ñoo ngi jàmmarloo ay affrontement yu diis a diis ay gërëmanaat lacrymogène di continuer rek di ko sànni ñi nga xamante ñoo takk der ñoo amal ñu mel rek avec ferme volonté jëm ci lutte syndicale bi door ci waaye itam fexe rek ba décliner perspective jëm ci xeex nga xam ne ñu ngi koy xeex formation professionnelle enseignement technique ngir ab formation de qualité bu mun a wuyu rek ci besoin marché du travail ci wàllum xëy mi gi ñu am ci kanamu lu ko ministère euh, daal di poussé rek ba takk der yi daal di réagir depuis ay weer ak yi nag éducation Sénégal nag paralysé grève yi du jeex professeurs yi nag neti nañ nag mënuñoo fexe rek ba am li nga xamante ni si moo di ab accord seen diggante gouvernement bu euh, Sénégal dem ba foofee ca France nag ay réfugié di ay daw làq Sénégal yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo Ukraine ñoom nag ndiki tey ji nag consulat bu Paris nag la ñu daal di song ngir rek dem ba xool ne war a def rek ba indi leen ay matuwaay yoo daan si ay jafe-jafe foofe ca réew bi nga xamante ni daanaka nag na àdduna wër nga këpp tàppet de sable boobee naka ci saara di nga xamante ni si moo di l'Europe di fàtti nag ab ngelaw loo xamante ni ngelaw lu bari la ànd ak poussière daanaka nag si wàan yi weesu nag askan bari am nañ ci ay jafe-jafe loolu naka di artu bi nga xamante ni ñi yore nag wàllu wooyu nag ñoo ngi ko doon artu di waa météo dem wax ci large foofee naka ca Maroc lu toll tolloo ko ñeen fukki doomi aadama ak ñeent yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ci ñoom naka ñaari tu tànk jéye jooje nag la ko sabab moo di ab naufrage di ab bato boo xamante ju tolloo ko ñeen fukki ni moo di ca mairie bu mbaaw di fàtti nag Abdou Karim Sall moom moo fa dal di wut rek nga xamante moo di Obama ci bopp boobee nag gannaaw ba mu dikkee nag ci xibaar yu jot li xam ne rek mooy lu tolloog 168 agents yoo xamante dañ doon daane seen doole foofee Abdou Karim Sall daal a dàq ci biti bi mu di lu tolloog 168 agents yoo ni dina koy euh, dàq ñu génn ca biti mu nekk lu bëri loo xamante ni ñoo ngi koy euh, ñaawlu ba tey ci biirum xibaar yi nag wax ci Guy Marius gannaaw bi nga xamante si moom sàkkoon rek ajandi liggéeyam salaire am boobee ñu suspendre ko waaye nag ca la mu sàkkoon di demande boobee nga xamante si demande d' indisponibilité nag boobu saa léegi gars yi yéeguñ ci abbi waaye nag si jamono joojee la mu doon fayoo di payooram dañ koo mujj a ajandi loolee nag tax nag mu bëgg rek ñu daal di leeral mbir moomee ndax la ko teg amul dañ loo xamante ni si méngoo na ak yoon moom Guy Marius Sagna ak wàllum tàggat yaram gannaaw bi nga xamante ni si moom guy gi nag daal nay daanu ci kanamu rëg rek la mu bëgg rek relancer wu ci wàllum làmb ji loolee tax nag mu sukk ci kanam kanamu ki nga xamante ni si moo di Eumeu Sène ngir rek mun a jàkkaarloog moom bëreeg moom moom euh, guy gi euh, bokk ci écurie Mor Fadam fi ñu toll nii nag Eumeu Sène rek la teg gëtëm ci jamono jooju Eumeu seen moom moo ngi waajal combat am ak Bombardier ñu war ko amal ci weeru mars bi ñu daal dee nekk jombul nag bu Eumeu Sène daanee dina ñàkk sens ngir mu dajeeg moom waaye nag lu ci mënti am leneen di safaan wa mën naa am Eumeu Sène dékk ko moom itam ngir ñu mën a sëgg bore ndax noonee la ko jàppee moom guy gi ngir mën a relancer xibaar ci syndicalisme TV xibaar yi lii la woon dig daje beneen jotaay fi boobu ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu programme jaa ngeen